waaye soxna si daa jaboote woon ñëpp umma islaam yëpp ñëpp jullit yëpp ba ci kuy wax ashhadu an laa ilaaha illallaah wa anna muhammadan rasuulullaah ba jàmbur kese kese kese ba ba la ku jullit sax ku xam soxna si xam ne ñëpp la jaboote woon loolu liñ ci wax lu bari ndax ñi ko xam ak ñi ñu gën a xam dinañ ca wax lañ ca war a wax ndax gis naa fi ay wax yu bari ak sëñ gànn mi dem ma ngi koy nuyu ak ñeneen ñeneen moom ku ci bëgg dégg te ñor la di nga xam soxna may mun loo loo loo defara sa dund àdduna ak alaxira ak mbokkam yi jiitu euh, soxna moomeeg euh, ba ca soxna Fat Diop ak mbokkam yooyu yooyee ba nga xam ne ñoo ñoo ni foo leen tigo foo leen tegoon teg góor yàlla yu mag yi ñuy coow ah boo génnee sa cër boo laajul weccet kenn du la jox weccet ndax doomi Sëñ Tuubaa mel noonu ndax liñ def ci àdduna ci ci yiw maa ngi am benn baay boo xam ne soxna Fatima bin Dia moo ko yar waaye boo masaan gis mag moomee yàlla yàlla euh, yërëm juróom-ñaari at la nekkoon loxo soxna Fatou Dia waaye ni mu defaroog ni baax ni mu defar rek loolu moo lay wan doomi Sëñ tubaab fa mu toll te soxna may moom mii ñii ñu nekk këram di ñaan yàlla taasu ci barkeem ñi mu defar ci àdduna ñu xam leen ci ay góor ak i jigéen kenn mënu leen lim te ku nekk da ngay defe ne kii Sëñ Tuubaa ko waaye loola maa ngi ñëpp a ko bokk li ma doon déy Seex Abdu léegi ci yëkkati kàddu gi defe naa sëriñ si bëgg a siiw moom léegi ba Basiiru Jaxate sax bu ko neexoon suba mu siiw di sama papa waxtaan dafa wax bàyyi leen sëriñ si ngeen publicité na jimboo ba mu koy wax ak seegu toon xam na borom gisoo la waaye bëgg a siiw ak bëgg a ma gis taxoon ma wax fii waaye wax fii dama cee fas ñett ndax bàjjen baal yi dama koo joxoon ndigal ma lànk ma bañ dinaa yëkkat ñaari kàddu biñ mujjee sëñ Cheikh Anta Mbacke ca Daaru Salaam sëñ Modou Rokhaya moo yëkkati ma ne ko doy na bàjjen ma ne ah, Abdou faaw nga wax moo xamoon la taxit nag ndax fam toogoon mooy toogu soxna may ba kon at mu ma ñëwee soxna bàjjen nee na ma Abdou faaw nga tànnuy kàddu kàddu yooyu yi nag kon bu ma yàlla mayee taw feexi ma wér ba fekke ko tal ko ñëw Cheikh Abdou bii jox ma ndigal te sañoon ko ci man kon damay sant yàlla sant yàlla sunu borom bu baax a baax a baax a baax a baax loolu mooy sant ku jëkk bi des di sant sëñ Abdu ak i rakkam ak papa Mahfouz ak soxna Astu ah soxna si moom wàcc na mett na ci ñun ñépp ñu jaboote woon mat na nag ñeneen ña jaamur yam jaboote woon ndax ñoom ñi ñi daan gën a jariñ du seen njabootu bopp ndax kuy def ngir yàlla daanaka léeg-léeg ñu xañ saayir seen njabootu bopp jox ko ña sori te xam nañ ci dara soxna Bali bi soxna may demee kéemtaanu Serigne tuubaa yàlla àdduna ca moo fi ne rek la ca metti rek mooy bàjjan miinam nga kanamam nga laabiiram ga bëggam nit ga neexoom nga safoom nga jataayam ba loolu lañu yàlla xañ saa saayir loolee moo ci metti te yàlla mi nu xañ dinañu def ñu mën a muñ ndax bu woon loola ña fekkoon sëñ Tuubaa ba mu demee ñu dem ña fekkoon soxna may ba mu demee ñu dem waaye yàlla ma ñu ko yóbbul yàlla nu wuutu ci xolu muñ bañ mañ koo muñ yombee wut noonu nag ndax soxna baal dafa bëggoon nit lool lool lool lool lool mm. dafa bëggoon nit lool man mii saa bu ma ñëwee dina ma jox ci muuraake yi jox ma barke yi muy ko dongo yay yamay laylatu xadar ca Ndakaaru ñu ñu ñu barkeeloo ko mu neex ci ñoom lool di taw feexu lool saa bu mu la gisee daal defe na ne teraanga moom faw nga yóbbu ko ndax sa kër nga ñëw waaye daal fii ku fi dugg ni ko soxna su may waxe woon sëb laat fetli ko sëñ Fall wax ko doom sëñ Saliou dugg ñëpp dugg ñun fi duggee xam lañ suñu aaja faju na waaye nag buñ génnee yàlla buñ yàquwaat Cheikh Abdou ñu ngi lay nuyu nuyu di nuyu njaboot yëpp di nuyu dongo yi di xam ne ci lañ di leen ñaax ku nekk daal sa pas-pas yaa xam fam toll ku indi sa ndab soxna may déelu ko diwel ci guddi gii te boo demee boo ko yàquti di nga ko jariñu àdduna ak àllaaxira waaxir daxwaana an alhamdulillahi rabbil alamin asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu